salaamaaleykum mbokk Flo yi maa ngi nuyu gars yi di leen ah di leen ñaanal jàmm ak salaam waaw ah, di gis euh, aimé yi abonné yi waaw kontaan naa ci li ngeen di def mais tey dama ñëw pour indi leen solution wu doy waar wax dëgg yàlla yow mi nga xamante ne sa yaram bi mënoo sang gàlla ba mu jàpp wala dafa tilim benn ca topp na la benn yaa ma gën a xam da tëju umu te xamoo lu ko waral koo jublu mu daw la. xamoo lu ko waral nga ci am xel ñaar boobu ubbi bi tey loolu jeex na da ko yomb te mën a faj aajo lii ngay wut saabu ordinaire bi ngay wut ak ñàmpe ñax moo ngay wut ñoom ñaar ñi ngay wut waaw nga jël nga fajar teel boo julee fajar ba pare nga jug sangu ci ba soo paree nga jël saab bi daal di koy saraxee yaa may dégg jël ñàmpe bi sànni ko ci mbalit ci sën mooy mbalit nga teg nga def ko juróom-ñaari fan yu teg boo boo ko defee lépp lu mu fekk sa yaram ci lu bon dana génn benn boo paree garab koo ci teg nga teg ko ci dafay jàpp far foos ñu bari dañuy sangatu alxuraan sangatu saafara du jàpp mais lii képp ku ci def teg ko juróom-ñaari fan nga bëgg seral sa yaram rek yaram bi lépp lu ci nekk dañ defal li nga xool saabu ordinaire ngay wut ak ñàmpe ñax waaw heure boo sangoo pare jël saab bi daal di koy saraxe ñàmpe bi nga jël ko sànni ko ci mbalit muy sën boo ko teglee def ko juróom-ñaari fan yi tegloo nga commencé ko lëndi waaw ba set jours yi mat nga doon jël garab yoo xamante ne bu wala leneen nga jël ko sangoo garab gi boo ko sangoo far force dafay jàpp sa yaram ndax lii dafa doy waar day seetal yaram ñu bari xam nañ ko te mag aussi tam dañ ko doon def ñàmpanjax dafa baax ci nit saabu ordinaire tam waxi noo dina dindi gàllankoor yi dina dindi yaram bu tilim bi ak cat ku fekk ci yaram bi da koy set ci ci ci ci ba ko damay rek euh, di di ni tabi xon ndox dama ci ñëw lu bari bari bari dafa am importance aussi tam dañu am doole waaw ndox yi dafa nekk ñett mais tey dama ñëw ci poisson yéen ñi nga xam da nga yow mi nga xam da nga juddu euh, le 20 mars comprendre nga ba le 20 février yéen laay waxal ñi juddu 20 mars ba 20 février moom ni seen couleur yére bleu la moo gën ci moom ngeen war di sol di ko lijjantee seen mbir pour muy gaaw sotti waaw pour raw bi jige la sa couleur yére yow mi nga xamante poisson nga bleu la sa chiffre douze la douze lu tax ma wax ko par exemple booy sarax ay mbir waaw douze glace wala douze mos ndox ndox mu sedd wala douze soow wala douze euh, guro par exemple wala douze jën jën sax nga jënd ci douze di ko saraxee chaque di loolu moo gën ci yéen waaw muy euh, muy muy chiffre bi waaw jour sarax bi alxamis la muy jeudi moo gën ci yéen damay ñoom dañuy nekk nit ñoo xamante ne dañuy bari gént boo xoolee dañuy mën a gént te lépp loo xam dañ ko gént dañ ko teg seen i bët lu leen waaye di def tey ji bu leen fexeel bu leen di fexeel dañ koy gis ci gént liggéey gaawu leen a jàpp ci boo xoolee dañuy nekk nit ñoo xam ne nag dañuy mën a nëbbatu kenn du leen xam a dara bari jikko nag mën a dikkalee waaw dañuy bari jikko mën a dikkalee tey mën nañoo koy toute la journée duñu wax ak kenn yàlla moo ko bind ci ñoom waaw yàlla da leen a noonu seen vidéo tamit macha dafa leer naññi yàlla da ko da ko def ci ñoom boo xoolee cuuraay bi nga xam ne moom ngeen war di utiliser suba teel gi di ko suuroo matinal bi waaw par exemple euh, mustara baax na trop mooy cuuraay boobu noonu ngeen di ko utiliser di ko suuroo gën na ci yéen tey jii bu dee góor gi tey jii ki mu war a àndal ci wàllum sëy nga nekk muy vierge suuf yi ñetti suuf la mais vierge moo gën ci yéen waaw bu dee wàllum sëy macha allah lii laa gis ci yéen lii laa xam ci yéen léegi après ñuy demaat ci scorpion jërëjëf waaw salaamaaleykum mbokk flow yi maa ngi nuyu ñëpp di leen jaar di kontaan ci aimé waaw commentaire yi maa ngi gis lépp waaye nag tey dama ñëw di baaxee secret bi nga xamante ni dafa doy waar gën lépp nag boo kolee ci wàllum planique lëg lay dox yow mi nga xam da nga nekk jigéen di sëy waaw bëggoo di def planique waaw ndax planique ko nga xam ne dafa yàq lu bari baaxul waaw da ngay wut yaxutaan boo wutee yaxutaan nga ëwlu ko takk sa ndigg nii nii wala nga dugg moom yaxutaan sax boo xoolee dafa am benn kii pax par exemple nii nga doo ci nga jël wenn wëñ wëñ nga jël doo ko ci biir ak ko takk sa ndigg donte mi ngi sa biir ndigg ëmb moom lu la yomb jor ngay dem di planique bu dee ko góor ki la daaw dafay ibbi wërsëg bi te kenn du la wàllu feebar boo ko takkee sa ndigg bu dee góor nga nga takk sa ndigg muy góor di jigéen sax laay waa boo ko tekkee sa dégg yaxutaan dina dox ci wàllum wërsëg te nit du la wàllu feebar bukk feebar bu woon moom nit du la ko wàllu boo ko takkee benn bu dee jigéen nga waaw bañ ay sa mbëgg yooyu mun nga koo takk sa dëgg yooyu mi nga xam da ngay sëy nag laa wax waxuma jigéen joo amul jëkkër na leer waaw jigéen ju amul jëkkër moom jarul nga di ko laal mën nga koo takk sa ndigg nag waaw mu dala aar ak yooyu day ibbi bunt day ibbi buntu bi mais bu dee da ngay bañ a ëmb moom mën nga koo takk sa ndigg ëmb dala yomb planique jarul ngeen koy def mi ngi nii mooy yaxutan seerul defe naa je pense que nii téeméer lañ koy jaay wala ay 400 gens yoo noonu ci marché yi beaucoup tey takk sa ndigg kenn du la wàllu feebar benn ëmb du la yomb merci beaucoup bisimilah ginnaaw ba ñu jógee ci safara tey dañoo nekk ci tabixa suuf ñi nga xamante yéen a nekk suuf waa Capricorne Taureau Vierge yéen laay waxal waaw déglu leen bu baax ngeen xam seen i mbir aussi ki nga xam ne yàlla da koo bind ci suuf benn ay mbiram dafay nangoo dëgër parce que biddoom dafa lëndëm ay day dëgër yàlla moo ko bindee noonu ndax yàlla moom mooy bind jàmm bu ci nekk ak li nekk ci yow ñoom seen mbir dafay nangoo dëgër parce que seen bidon mu lëndëm waaw seeni sarax nag nañ nekk lu ma ko dama chaque jour dama koy wax sax dugub mbokk ceeb waaw cat bu la sonalee dëgg yow mi nga xamante ni capricorne nga wala vierge wala taureau gutal batan semi aubergine wut ci ñaari kilo def ko sarax saraxi ko kaaraa ngi aussi tam bu dee da nga ko bëgg def saraxi dàll dafa gën ci yow yaa may dégg dàll yu ci ñaari paire di ko saraxi sa couleur marron la sa sarax samedi la yéen waa Capricorne sen sen sen sen sen sara sen sen jour sarax samedi la waaw sen couleur marron la tey jii moom ngeen war di sol waaw pour di pour de boo leen di lijjanti sen mbir bëgg mu sotti tam yitteel leen amal leen njëriñ ak importance danañ sol yére bu marron di ko doxi jee sen mbir yàlla day def day day neex seen mbir dafay dafay neex mais nu ñu dëggu aussi tam te nit ñu mën a muñ nuñ dañuy mën a muñ mën a denc secret lépp loo xam da nga leen da nga da nga da nga da nga leen koo wax ñoom dañ koy téye waaw parce que itam nit ñu calme la ñuy doon tey mën nañoo nekk ak ci benn néeg doo dégg ñu def bruit duñu wax duñu def dara yàlla moo ko bindee ci ñoom aussi itam ay nit ñu nangu dogal la ñuy doon ci boo seetloo waaw dañuy nangu dogal lépp lu ñëw rek dañ koy nangu dañ koy muñ dañoom am xol yàlla moo ko def ci ñoom te duñu duñu ay workat duñ na mos war xanaa nga yow nga dem baleen mais ñoom moom dañuy nekk ak yow. dañuy nekk ak yow di la jàppale ci say mbir te ñu nangoo liggéey aussi la ñuy doon dañuy mën a liggéey benn te nangoo ko aussi itam waaw négligent dafa nekk seeni mbir ñoom dañoo négliger gaawoo ñu jug ci seen popp waaw tey ju loo wax rek dañ koy négliger duñ ko nangoo def ak yooyu noonu mën a ni digal loo wax rek ñu ni waaw yàlla moo ko def ci ñoom mais ay nit ñu dëggu la doon lii laa xam ci yéen lii laa gis ci yéen maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam jëm naa suuf. salaamaaleykum mbokk flow yi mbokk abona yi maa ngi nuyu gars yi di leen nuyu yéen ñëpp di kontaan ci vidéo yi ci aimé ci clip waaw ginnaaw ba ñu jugee ci euh, ngelaw tabixe ngelaw dañuy ñëw ci ñi nga xamante ni seen vidéo dafa nekk safara ndox ñu bari ñu ngi ma koy laaj après ñu dem ci suuf ñi nga xam dañoo nekk safara nag yéen a moom lii yéen nii yéen a concerné waaw parce que li may wax chaque jour rek ñetti safara ñoo am. mooy lion di bélier di sagittaire ku ci nekk am nga sa chiffre ku ci ne am nga sa jour ku ci ne am nga sa couleur yére bi ngay sol pour say mbir mën di dox waaw loolu nak da nga da nga koy seetlu ba xam ko mën a xam yow li nga doon ndax mën nga nekk safara kese kese ta doo bokk ak sa morom sa chiffre li ngay saraxe mën ngeen a bokk ay sarax mais doon bokk jour wala ay wala chiffre maanaam waaw ki nga xamante ne nag dafa nekk safara yàlla bind ko ci safara boo xoolee macha allah nitu wërsëg lay doon dafay am alal mais du toog benn place mun na am léegi un mais day seyaat ci ay loxoom waaw taf-taf day seyaat lu alalam du toog benn place li nitu wërsëg lay doon ay mbiram dafay dox ba jaag daal di taxaw ba da ko jaaxal moom day dina foog ne dañ koo liggéey genre noonu fekk ni yàlla moom moo dogalee ay mbiram noonu te cattam da ko sonal lool nag boo xoolee waaw nit ku am xadar lay doon muy ku góor ki di ko jigéen gi waaw te fiir aussi itam dañuy fiir muy góor ki di jigéen ki duñu nangu kenn ku leen di diriger yàlla moo leen bindee noonu gaaw mer gaaw gis seen bopp gaaw ak ñoom dangay wax ak ñoom sax ñu gisee wax ja neneen waaw di mer fu ñu toll dañ ñoom daal dañuy nekk ni ñoo xam dañuy mer daal par exemple coow yow mu ne loolu tak da ngay wax ak ñoom benn ba ñaar ba ñu histoire ak yow mais buñ ci paree pare nañ ci mais du ñu am xol nekk nit ñoo xam ne ay boroomi xol lañ waaw seen sarax mburu da ciy baax loo xamante ne dafay meññoo ko fu tàng ay laax bu tàng xam nga mburu ay sondeel xam nga guro gu xonk par exemple dafa baax ci ñoom wala tuur deret loolu gën na ci ñoom macha allah mais nag ñetti sa kii ñoo am ñetti euh, safara muy lion bi bélier bi di sagittaire ku ci nekk nag am nga sa jour sarax ku ci ne am nga sa chiffre bi ak sa couleur yaa may dégg ku ci ne am nga ci loo war a saraxe loolu nag dangeen ko war a xam loolu dangeen koy seetlu ba xam ko ndaxte macha allah xam sa tabixa dafa baax ndax dina la permettre nga xam sa saraxu saraxu sa sa saraxu kii tabixa sa saraxu tabixa dafa baax ci doomu adama parce que da lay musal ci ay gàllankoor ak yenn mbir yu nga xamante ni baaxul waaw. ñoom nag boo xoolee lépp ci seeni tawat day jàpp ci seen suuf seen suuf lay jàpp suuf metti tànk yi nagam yaram bi tàng. mais nag du dara ci ñoom yàlla moo leen ko yàlla moo leen bindee noonu en fait waaw yàlla moo leen bindee noonu ay borom yu wërsëg la ñu doon seen am-am dañuy am ba ci yàgg boo xool dem ba ci biir lépp taxawaat lépp da leen di jaaxal macha allah nitu borom yu wërsëg la ñuy doon ci benn côté waaye cat moo leen ñoom gàllankoor daf leen di sonal lool lool lool lool. am am am aussi itam daf leen di yomb maanaam dañuy am alal. macha allah mais da toog benn place lu ñu yor dafay seer ci seen loxo ba loolu di jaaxal mën nañu jàpp ne sax liggéey moo nekk seen yaram wala yenn mil yi mais cat tam daf leen di sonal daf leen di topp di leen yàqal seen alal toog benn place waaw mais tout deret baax na ci ñoom saraxi sondeel saraxi laax saraxi mburu surtout mburu macha allah gën na ci yoon jërëjëf.